jéggalu ci kàddu yi ñu teg kàddu yu bàyyi waaye nag day kàddu cant rek ak ngërëm jëm ci sa jëmm ji ci taxawaay bu rafet bi nga taxaw ci gépp njabootu Serigne Touba te dana jubluwoo ko ci lu dul rek fas yéene sàmm seen ndonoy maam ci yàlla na yàlla yàggal te wéral ku lay xaar yàlla na xaar njabootu kër seen daaru asan sant nañu ndax lépp lu dal ci njabootu Serigne Touba gi laay wax nga sol saw dal dox ca lu rafet wax ko ca te doo wax mukk ñu xeb la mbàkke liggéey Serigne Touba bi li nga ci yanu ku na dana wayaf dalay ndax du wayaf ndax li nga wax léegi sa biir kàddu may naa la nopp boon xoolee ci ka ko lëggee mënut a woyof waaye yàlla na yàlla dëgëral ba nga yóbbu ko fa fa ko samaam taamoo ndax xaj na fa fa ko murdi taamoo su yàlla na ko mu njaajaar mi mbaam Mor Njaay Téenoo sama maam nee na moo daan dem gànnaar di fa jëndi attaay di ko yem di ko yëg seen Tuubaa jëre ba kon naka jëkk liggéey sëñ Tuubaa mm. taxawaay bi rafet na sant nañ la gërëm nañ la waa dañu ñaay jëpp ndax lépp daal njaboot bi ba mu tàmbalee ci mbir moom ci jàppe taxawaay bañ ci taxaw bépp yëg mm. lay sant di la gërëm la ñaanal yàlla la yàlla sàmm yàlla yàlla dëgëral yàlla la yàlla li nga yéene ci sa yoon maam bi yàlla la bor ci dara yàlla la ko taxawal danga ko bëgg jërëjëf waaw damaa ñëw rek jégalu la coono yi mën a teg la la sama waaw ginnaaw bu ñu yeesalaatee suñu njëbal ci yéen maanaam waroon na bu yàgg ndax suñu maxtaar si la nen maam moom benn néeg wax ak maanaam benn xarit laa am daanaka mooy moom soxnaam man maa demoon takk moom moo demoon takk sama soxna lépp lu yàgg sëñ xaadim yi itam comme ñu ngi Dakar daan ñoo bokkoon benn blasement bi boobu Dakar teew moom it ñu ñu ànd ba fii may wax yow bi ma demee ba sañ ci xam mbaaw da ko jaral ñu ko sama wet bi dëkk ñu ngi suñu dëkk moom itam wax dëgg yàlla soxnaam la ma sañ ci këram ak soxnaam ba muy wut soxnaam si daanaka menn ma la ci waxal ba ma ne ko nangu naa ko daal ci sori tey wax dëgg yàlla gis naa fi ñu ko teg ak ñu koy jàpp loolu daal la waroon naa ci ñëw bu yàgg ñu ñëw itam ngir sant la wax dëgg yàlla ñun sëñ Tuubaa lañ yaakaar waaye nag wax dëgg yàlla li ngeen dox xëy na ngeen ko defal nag sëñ Tuubaa bu ñu bokk waaye dëgg yàlla ndax li ngeen yem maanaam bari na loo xamante ni maanaam mënoon naa mënoon naa taxawaay bi daal war a demeewul noonu demee danañ yëg na lu ngeen am lu ngeen kii la waaye daal taxawaay tuuti yàlla rek am na lu ma yéene woon nag sama xol mooy sëñ jiitu mii sama rakk la maa moom rek la fi sama yaay bàyyi ñoo bokk ndey ak bàyyi euh, sama bàyyi doom yi am yëpp amu ci fi jënd ko suñu baara kii dafa génnee tur bi wéyul tudde ko suñu tudde ko suñu xarit la ko def mooy man sama waajur suñu baal dama moom mébétu tudde ko doom waaw suñu basaati ñaanal ko sama fayee ko kii nag maa ngi la koy dénk waaw naa ko nag wax dëgg yàlla ndax laata may am soxna dama ko wutal soxna ba ma ko dogal laata may am kër dama ko jëndal kër ba ma ko jënd laata dama ko moom laa ko a wutal ci yàlla kon daanaka maa yëpp dégg naa la ko na ko sama bàyyi yëkkatee woon daal di ko so so way yëpp noonu laa ko yëkkatee dégg la daal maa ko def nag sama kanam ñaari waaw daaw na soxna am ci kër yi ñu ci kër yi amiin amiin góor bu mag dafa am dafa ba ma bokk yi mooy day wax si ala Cheikh Thiam moo nekkoon bu teew asam asalam dafa maa nekk li mu ma sëñ Ba dafa def dama sëñ Saliou dafa amoon ay tool seen ëppul këy bu mag ma miiree ko miir ba yegg ma ànd ak moom sëñ Saliou di ko wéccaay moom mu ne ba ñu joxee caabi bi sëñ Saliou ma ne ko lu ngeen bëgg ci nii mu ne lan la wax loo bëgg man man de damaa bëgg rek ku fi ne di liggéeyal sëñ Tuubaa rek ma ànd ak yow liggéey sëñ Tuubaa loolu laa bëgg maanaam loolu nag wax yàlla jëmm lool ndax sëñ Saliou comme ne loo bëgg waxoo dara àdduna lu dul liggéeyal sëñ Tuubaa rek loolu moom yéen moom li ci def ma ne ko nag li ci yéemaan mooy maanaam jëf ji tool moom ku ko defal sëñ Saliou waxoo ko mu ñëw ba ci kaso bi di ko si dégg ñëwaat di waaw waxoon naa ko nag danaa ñëw ci yow wax la nga ñaanal. waaw daal di jëm suñu saa yi la woon waaye fi na soixante soixante dix ans te ma la foofu ba. waaw ko nag danaa ñëw ba ci seen bas. waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw moo nekkoon directeur. Seydou moo doon toog foofu boobu. waaw waaw. moo nekkoon directeur assaini. loolu loolu la keroog ba mu fi jugee noonu la ba kii ba ànd la. waaw bi suñu Seydou bàyyi ko. bu la fekk tool yi mu doon liggéey ci fa àgguwut. mu ñëw fi ne nga damaa bëgg nga bàyyi ba ñu raaf moo doon ko àggale. waaw wax ma yéen itam daal ma ne ko nag damaa jàpp ne li nga si ñëw santoon te nekkut fi. bu ma ko daggee rek day mel la ma la ma ci waroon duut amati. a hmm. contrat. boo ko seqee nii. boo matul loolu day mel dañ ci waroon seet doomu jàmm. lu kii maan di ci yàlla xam ne boo fii fii ma toll nii. Hmm. mu daal di mu mu di ab guddi ñu yàgg na deux mille sept deux mille wala deux mille xanaa sama xol lii da mu wute. bu jullee fajar ba ba départ jël si saa bi mu nekk sant. waaw yàlla xam si laa ko jóg jël si bi moo danaat lii rek kon. moom it ba may ndaw dem réew mi lañ daan ànd fa ba tey jii pour suñu taxaw yi. waaw. waaw. maanaam bu a doon. sëriñ bu ne asalaamaaleykum wa rahmatullah. nee na ngi leen di delloo ab nuyoo bu baax a baax. leen sant di leen sant bu baax a baax. di leen gërëm. te xam ne lii moom daanaka jëru ko woon. te xam ne ne lii moom daanaka jëru ko woon. lu mu war la def ko ndax nee lu lu ko lu ko war la rek mu def ko. li nga doon ci yoon ndax nee na li nga doon ci yoon ak kilifa yi ak kilifa yi nga am. ak bokk yi nga am ci yoon ak bokk yi nga ci yoon lu dal ci sa kaw rek. lu dal ci sa kaw rek. dal na ci njabootu Sëriñ Tuubaa yëpp. dal na ci taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp. nee na kon nag. nee na mos naa dégg ci Sëriñ Saliou. nee Sëriñ bi. daa waxoon Cheikh Modou Moustapha. sëriñ bi daa waxoon Cheikh Modou Moustapha. ak Cheikh Modou Fadel. ak Cheikh Modou Fadel. na leen. na leen. seenu jaamu yàlla. seenu jaamu yàlla. ginnaaw li yàlla farataal ci yéen. la ci mooy a jaxasoo nit ñi. a jaxasoo ay nit ñi. di dékku seen i i métti métti. ak seen i kii ak seen i kii kii. ak leen jëriñ. te di leen jëriñ. yaa a jëriñ bu baax. a. kon moom day jàpp ne nit ñëpp ñun ñun ñëpp ñun ñu tudd tudd sëriñ ñu tudd di tudd ñu tudd di ko tudd ku a jiitu ci war a jiitu ci yow nee mooy toppatoo taalibe yi. fan yii ci màggalu sëñ bi daa am ko nee na fan yii ci màggalu sëñ Abdou Khadir bi daa am ko koy wax. ko koy wax. nee na li ko yéem li tax nga toog ci mbaal yi. nee na li li ko yéem li tax nga toog ci mbaal yi. te doo jàll ci biir tool te doo jàll ci biir kanam. am na si lépp ci nit ñi. nee na am mën na ko am na lu ëpp ci nit ñi. mënuñu ak si biir. mënuñu ak si biir. ñooñu posté kese ñooñu posté bu kese moo leen tax a ñëw. Cheikh Abdoulaye Cheikh Abdoulaye Mbacke

ñeneen ña fa des amuñu solo. nee na ñu ne ko ñeneen ña fa des amuñu solo. sëñ Abdoulaye nee na yéen a ngi juum de. nee na sëñ Abdoulaye ne leen yéen a ngi juum de. ñooñu yéen di bañ a tudd. ñooñu yéen di bañ a tudd de. ñoo ma gën a ñor. ñoo ma gën a ñor. ndax borom ñaari dërëm ak juróomi ngeen di fay. ndax borom ñaari dërëm ak juróomi dërëm yi ngeen di fay. ñoo ma gën a itteel. ñoo ma gën a itteel. ak posteefu kese ak posteefu kese moo leen yëg. kon njabootu Sëriñ Tuubaa bi. nee na kon njabootu Sëriñ Tuubaa bi. ginnaaw bi nga xam ne dénkaan bi leen Sëriñ Tuubaa dénkoon. ginnaaw bi ñu xamee dénkaan bi leen Sëriñ Tuubaa dénkoon. loolu lañ sàmm yoon yi. nee na loolu yi lañ sàmm yoon yi. mooy aar taalibe yëpp. mooy aar taalibe yëpp. ak aar njaboot yëpp. kon loolu ñëpp la war. nee na kon loolu ñëpp la war. moom ñu ngi yàlla def. nee na moom ñu ngi yàlla def. ba xar-xar yi amee sa sa bokk bopp ñoo fi nekk sa bokki bopp ñoo fi nekk moo gën a gën fekk biñ ko ko yëgalee nee na booba fekk ko fi daa daa déglu nee na bisu tabaski lañ ko ñoom ñëpp nañ sax ñëwin bu yaatu leeral ko yëf yi mu ñeewante la ca lool am ci yow yërmaande lool nee na booba sax la tàmbali am yéene dox ci. ginnaaw bi itam. ginnaaw bi itam. ca semaine ba. sëñ Moustapha. moom seen seen sëñ Moustapha. moom ànd ak Cheikh Ndiaye. moo ànd ak Cheikh Ndiaye. ñëw ba fii. leeral lu bari si lu nee na lu mu xamul woon loo xam ne xamul woon sax ni mu demee seen si biir na booba xamul woon sax li ah, nee na ko leeral lépp nag. wax ko sa taxawaay ci moom. ba àgg ci ne ko taalib yi daal li ñu yaatu yaatu. nee na ba àgg ci ne kenn mënu ko ci kenn. nee na jàppal ne kenn mënu ko ci def nee na kon loola xamuloon dara ci yow. nee na bu ñu xamuloon dara a yow itam. sëñ Moussa la koy jëral bëri xam na. ndax sëñ Moussa la koy tax a jar la ko jaral jóg bëri xam na ne dina nekk sax. Mm. ndax di fa ajuram di nekkee sax. ñëw na ko dégg soxla ñëw na ko déggee soxla moom loolu ko ndax loolu la ko yàlla bind. waaye xam naa seen mbir xam ne ne seen mbir ñor na ko lool. ba àgg ci ne ma. ba àgg ci ne ma. bëgguma yaraange di ko dal di ko dal ci yow. wax na li wax li nga seq ko li nga seq ak mu wóor ma ne àgg na ko foo xam ne. nee na mu wóor ko ne àgg na ko foo xam bu doon doom ju jural boppam. bu doon doom ju jural boppam du ci àgg. kon loolu mënee su ko weesu. kon na nga xam ne am na kilifa bu mat kilifa. kon nee nga xam ne yow am nga kilifa bu mat kilifa. jàppee na la taalibe. jàppee na la taalibe. jàppee la doom. jàppee la doom. jàppee la lépp. ginnaaw bi itam. ginnaaw bi itam. ki fi Serigne Touba. ki fi Serigne Touba. Cheikh Mamadou Mountakha. moo woo moo ko woo ba mu ñëw. mu digal ma. mu digal ko. wax ma li ma ci war a dox. wax ko li mu ci war a dox. muy teel ko lool nag. muy teel ko lool nag. kon loolu yow doy na la sëkk. nee na kon loolu yow doy na la sëkk. waaw ndax ki fi nekk Sëriñ Tuubaa. ndax ki fi nekk Sëriñ Tuubaa. du bëgg mukk lu dul am. du bëgg mukk lu dul am. kon bu ca dogoo noonu. nee na kon bu ca dogoo noonu. itteel na ko itteel na ko. kon xam na fi nga bokk. kon nee na xam na fi nga bokk. muy njabootu suñu jaabaasa. muy njabootu suñu jaabaasa. ndax ñoom kenn du leen dégg dara. jaamu yàlla liggéey jàpp seenu njàmm jàpp seenu njàmm bu ñëpp meloon ñoom bu ñëpp meloon ñoom kenn du am lu ko naqari ci yoon kenn du am lu ko naqari ci yoon yàlla defal na leen dimbal nee ci yar bi ci yar bi pasteef bi dugguñ ci lu ñu war dégg dugguñ ci lu ñu war lu ñu kenn du dégg seen kàddu yi tam loolu doy na la sax bu doon yi itam bu doon sa kilifa yi itam loolu doy na la ca des it nag mooy mbirum kaso bi. la ca des it nee na mbirum kaso moom. am na ko rek la. te ñaari ku ci jóge rek. te ñaari ku ci jóge rek. la la ca dugaloon bu dul gàcce. la la ca dugaloon bu dul gàcce. ak ñëkkati ko lay doon. ak ñëkkati ko dong lay doon tool. dara gis nee na kon loolu bu dara gis yow. am na am na. Allahu akbar. ci kaso bi ci kaso bi. ci la jógee suñu borom yëkkati ko. ci la na Serigne ko. li mu nekkoon lépp kaso la. li mu nekkoon lépp kaso la. kaso yi dafa wute. kaso yu amoon. mu jëloon ci position bu métti. mu jëloon ci position bu métti. mu jaaxal nii. mu jaaxal nii. am ku ñëw na ko mbàkkee nit ñi dañoo tiit na ko mbàkkee nit tiit lool. te sëñ Touba kat ndax sëñ Touba kat dafa yàggut. bi mu nekkee Ndiaye. bi mu nekkee Ndiaye. gis nañ fi mu jaar Touba. gis nañ fa mu jaar Touba bi. ni ñu ko téye. ak ni ñu ko téye. kon kon. Euh, lii kaso sax xaj na ci. nee na kon ñu ne ko lii kat kaso sax xaj na ci. sëñ Ibrahima kon de du mos gor. kon nag sëñ Ibrahima mos gor. moom mi juddoo ci kaso. moom mi juddoo ci kaso. bu ma ragalee kaso. nee bu ragalee kaso. kon du mos gor. kon yow itam. kon nag ne yow itam. lii la ñëpp seere rek doy lii la ñëpp seere rek doy mooy say bokk. mooy say bokk. li say sëñ. li say sëñ. ak bokk taalibe bi ak bokk taalibe bi yëpp. sa ñëwén ci nit ñi. nee na sa ñëwén nit ñi. ak sa dimbali nii. ak sa dimbali nii. ak sa taxawu nii. ak la ngay dugg nga di ci am gàcce. kon a góorgóorlu li nga nekk. nee a góorgóorlu li nga nekk. ba yàlla defal la lii seen ñëpp am ci yow yaakaar. ñëpp fonk ñëpp xam ne nitu dëgg la. ñëpp xam ne nitu dëgg la. mais loolu dara ëpp ko solo te dëggu moom ku la ci mere ku la ci mere yi yàgg-yàgg dana wëlbatikuwaat dana wëlbatikuwaat moo tax li am solo rek mooy looy def di ko seere yàlla. nee na mooy tax looy def rek nga di ko seere yàlla. di ko seere sëriñ Tuubaa mii sab sëriñ. te di ko seere sëriñ Tuubaa mii sab sëriñ. ndax li ngay wax rek sëriñ Tuubaa sax ko waxoon. nee na ndax li muy wax rek sëriñ Tuubaa sax moo ko waxoon. bu leen sonn ci sàkku ngërëmul bindee. bu leen di sonn ci sàkku ngërëmul bindee. ndax kenn mënu ko am. ndax kenn mënu ko am. te ku ko wutoon ba am ko yëpp la jëriñ. te ku ko wutoon ba am ko yëpp la jëriñ dara kon li am solo kon li am solo mooy ngeen fexe ba sonn ci sàkku mooy ngeen fexe ba sonn ci sàkku ngërëmul yàlla ngërëmul yàlla ndax yàlla bu leen gërëmee ndax yàlla bu leen gërëmee nit ñi gërëm la te duñ ko sañal mm. kon nag ñoo ñu ngi leen di sant bu baax di xamal ne yii adduna indi moom ay tolluwaay te day jàll ba mel ne lu mu sal kon nag li am solo li ma leen di faral di wax ñun ñëpp te nee na moom it foofa la taalibe Sëriñ Tuubaa nee na mooy taalibe Sëriñ Tuubaa yi nañ xam ne Sëriñ Tuubaa yi nañ xam ne Sëriñ Tuubaa yi kii faral kii kii faral kii. kii faral kii kii loolu ko la sañ na loolu ko ne sañ na man du ko digal kenn. nee moom du ko digal kenn. du ma kenn àndale kii. du ma digal kenn nee kenn na ko bàyyi kenn na ko bàyyi kii. kenn ko dégg ci moom. kenn mësu ko dégg ci te foo ko yéene li te foo ko yéene li li sama dund. nee na li si dundam. nit du ko dégg ci moom. nit du ko dégg ci moom. ndax loolu amul solo ay jaar. ndax loolu amul solo ay jaar. ku ne sañ na ko it nag. ku ne sañ na ko it nag. ndax loolu xalaatu ndax loolu xalaatu na rek la. ndax mooy waaye li am solo. ndax li am solo. mooy Sëriñ Tuubaa mi leen boole. mooy Sëriñ Tuubaa mi leen boole. mooy lii sax. mooy lii sax. li ci des nag moom kii day lii day ñëw di dem di dem di ñëw kii day dem loolu dox dox na nee na dox na dina rek la amul solo nee na loolu amul solo kon loolu moom ma gisee ñaar ñi ci merente nee na bu gisee sax moom ñaar ñi ci merente dama leen di yërëm nee da leen di yërëm moom ndax ñoom ñoom ña tax ngeen di ko def ñoom ndax ñoom ña tax ngeen di ko def ñoom ñoom nekkuñ ci foofu ñoom nekkuñ ci foofu adduna doomu la ñuy sàkk yéen li ngeen di sàkk nee na yéen li ngeen di sàkk adduna ak alaaxira adduna ak alaaxira kon loolu rek taw sax te loolu nekkoon ci lu baax. ak ni nga daan taxawu nit ñi. yàlla gën la cee dimbali. boo ci jógee rek. boo ci jógee rek. gën cee gis ak yokkute. gën cee gis ak yokkute. te rafet nañ ci ne njort bu baax. neen am nga sa njëriñ waajur. am sa njëriñ sëriñ. am sa njëriñ sëriñ. kon li ci des nag moom. bàyyi ko ci loxol yàlla. jërë ni dañoo siyaar si woon Cheikh euh, Serigne Bass Abdoul Khadim Mbacke moom la euh, Cheikh Bari ñëwoon Cheikh. wallaay waa social bi lay def sama mosuma ñaan njëkk lu sama xarit dama amul benn waaye xam naa taxawaay ma am ci moom loolu di ko nëbbu ci suuf te Sëñ Tuubaa képp la jàmbat yow Sëñ Tuubaa képp la nit di seet ñu ngi juum ci yow te Sëñ Tuubaa képp la jàmbat ñu daal li ngay ñaar mooy sax li ñu la dégg bu mu daay bu mu dëng daay bu mu daal yaa ngi soo ko gis ma jàkkoor yow ak yow wax bi sama xam man benn. loolu loolu ñëpp seere ci moom. Ah, ndax daaray alxuraan la koy fàtte. te yor na daaray alxuraan yoo xam ne képp kuy indi sa doom daf wax na la laajuma ci kenn dërëm. soxnaam see togg soxna kati wala yu asim ca kaw lay toggee li muy lekk moom lay jox ay dongom ñu du ko lekk bu effectivement jotee mu di leen xotti nuy kii dañuy dem banaan ko nga yàq dong kii yëkkati alalam ci yoo xam ne bëgguma ngeen manqué dara nga ñaanal ko ci daal jooju sans borom defal ko ci ndax kenn koy dara lépp moo koy defal boppam ñu ngi koy ñu ngi koy ñaanal baax a baax donc da ngay jël photo si Moustapha Saliou sa photo yéen ñëpp ma ne ku ci si sëriñ bi ko wax kenn. xanaa xamoon na dina si Moustapha. mën na ko si tudd na si Moustapha loolu soxla na ko. léegi nag sëñ Bassirou. sëriñ nag moom boo amee demal boo amul demal. waaw li am solo mooy nga gis la nga gis ab loo ñu ma xam. waaw ñu fële leen. waaw. daa tàng tàngal leen ñëpp. waaw. incha allah. amiin. amiin. amiin. amiin. amiin. amiin. amiin yaa rabbal aalamiin amiin man ni ki ma tuddee sama baay sëñ Cheikh laa laa ko jébbal